animateur animateur waaw ah. jox ma leen benn baar. li ngeen di xeeb lépp ñu wàññi njëgu courant bi maa ngi koy seetaan ci télé yi. camarades s'il vous plaît li ñu naan bu tàngoore woon bu ñuy gubari mbaam mu dem topp ca jàpp ci boo leen déggee loolu nag xaayal ku dégg séeréer te yaakaar naa ne bii may saña ñëpp jàpp nañ ne amul liggéey liggéeyam moom mooy manifester liggéeyam mooy xeex loolu nañ ko wax état bu Sénégal nga xamante ne weer wu jot moom mooy jureel Guy Marius Sagna salaire bëgg leen wax foofu ne Guy Marius Sagna animateur animateur waaw ah. jox ma leen dernier bar l'exercice des libertés publiques est garanti et ne souffre d'aucune limitation sauf je dis bien sauf nécessité de prévenir publique, de garantir la libre circulation. Merci beaucoup Adja waxtu bi daf ñu dab waxtu bi waxtu bi daf ñu dab daañu dañuy damay daal di rek daaneel pour wax ni damay daal di daaneel rek pour wax ni incha allah ñoo lank demeure plus fort que jamais. ay góor lañu ay sénégalais lañu ñun ay gaynde lañu ñun ay góor yàlla lañu et eh, benn yambal mënuñu xañ suñuy droit benn yambal mënul téye doomu jàmbur na du ko bàyyi masla bi la fa nessuno se ne va sulu sosyete yangatuna sulu sosyete yangatuna magi magi say sayla nanu respecte sulu Senegal qui respecte sunu Sénégal. sunu société yëngatu naa. sunu société yëngatu naa. Macky saay saay la. Macky saay saay la. Macky respecte sunu Sénégal. sunu aji respecter sunu Sénégal. il faut que ñu wan ko ni il faut que ñu wan ko ni nous sommes déterminés il faut que ñu wan ko ni nous sommes un peuple debout il faut que ñu wan ko ni bi ñu Ablaye Wade fonto dañ ko ñaf ca xaj il faut que ñu wan ko ni ñu ñu may